dit fenêtre euh, euh, wàllu l'équipe nationale un peu internationale euh, international sénégalais bi nga commencé une sélection yagoul c'est récemment donc c'est premier c'est premier match que ça ça pas joxeegul à 100%, ni cent ñi xaar ci yow aussi lu bari d'abord mu nga revenir un peu si say premier pas en équipe nationale lan mo la impressionné. waaw l'équipe nationale mom non la démé deug la ñu en fait c'est normal parce que li ñuy gis may wane suma club la comprendre nga. donc dama siy kontaan parce que bu ñu la xaarul rek ça veut dire que compté wuñ si yow waaw kon man maa ngi si considéré sama maa ngi si bu baax sax genre que sama xel mi ngi si loolu bu baax maa ngi ñaan yàlla xam naa prochaine match yi jot yi nga xam mooy ñëw gars yi gis ba et que gis ni nga xamante ne moom laay wane suma suma club incha allah mais xam naa ne dinañ gis loolu si kàttanu yàlla waaw fii la équipe nationale euh, dugg naa si bisimilah ma rahim génn maa ngi nii yàlla naa si génn si alhamdulilah rabbil alamin parce que passage rek na dugg bi rafet génn bi rafet waaw te yàlla naa fi jël dara balaa muy génn amu fa benn problème dugg naa fa gaa gars yëpp déggoo naajement quoi vraiment comme famille parce que suñu dëkk la fii du bokkul sax comme Europe mooy gën a métti ak adaptation bi méttiwul quoi parce ñëpp ñun xamante ne déjà peut-être xëy na. kii bi mu woon rek communication mais ñu ñëpp xamante ne fii le reste rek teg si loxo yàlla rek incha allah na naa ne suñu gars yi séntu dañuy fa dañuy fa egg si quoi. Mais nga ñu expliquer un peu comment ça fait que tey nga gis euh, dañuy naan joueur bu nga xamante ni il marche bien en club en sélection day yéex a explosé wu du yow donc arrivé na joueur yi bari le différence boobu lan mooy lan mooy différence bi en fait lan mooy lan mooy waral loolu problème lan mooy problème bi lan. waaw mais mënuñu ut mënuñu comparer club ak euh, sélection alors euh, mënul doon benn quoi fee yaa ngi toog joueur yi benn dix mois ferme ngeen di nekk chaque jour di entraîner chaque jour sélection nu mu mag mag nu mu rëy rëy une semaine lay durer et que chaque fois dina am jour bu bu bu bees bu ñëw peut-être position peut-être genre bu nekk dina am jour bu bees yooyu yëpp day compter aussi mais tam mënul mënuñu ko comparer parce que nous doon benn. Messi sax mënul def li muy def Barça def ko seen dëkk Argentine kon kon Cristiano Ronaldo keneen keneen waxuma la man kon loolu fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi waaw dañuy gaa yi ñooy comprendre compréhension rek xam ne loolu loolu fi lañ ko fekk noo la mën a demee et ku sañoon tey sa dëkk ngay gën a doxee sa dëkk ngay gën a lu yàlla dogal moom kenn si mun dara am na xamante ne seen nag li seen dëkk li ñu gën a doxee national. que un club mais bëriwul quoi tuuti la il patience donc a patient un peu. il faut que ñu am du patience parce que faut ñun soxla tam aussi ñu ñëw rek wane yi nga xamantene moom la suñu club voilà kon xool sama première saison club douze ans la douze première partie dañ vingt parce que dem ba xam de xama tey man sélection trois trois matchs laa mënuma ñëw def loo xamante ne xam nga aussi loolu yëpp si la bokk mais nag même bu mën a keneen na si yem yeneen joueurs yi ñoo fi njëkk sax ñu leen koy wax wax man ak man que duñ dox fii seen kilo bi ñuy doxee genre yi xam nga kon loolu fii lañ nit noonu laa fa demee ñoom ñu bàyyi loolu quoi kon ñu continuer rek ñu ñaan yàlla ñu am patient bi xam nga may ñu ko confiance aussi ñu bañ ñu bëgg wane ñu wane ko. qui bi nu ñu koy euh, équipe nationale bi concurrence hein, dans l'attaque, euh, nga nek ak sey morom yi nga xamanteni ne ku si nekk bëgg na football nga xam ne yaa leen fekk fii commencé football sen kanam tamit mu doon li nga xamante aussi ñi ñi bëri rafetul nañ ko parce que ñi bëri ñoon xaar sa sélection d'abord concurrence boobu mën nga ci revenir un peu nga wax ñu comment ça se passe nan ngay vivre lool nan ngay vivre vivre lool waaw équipe bi moom foo dem am na concurrence Non, moom muy club muy international lépp. waaw te jour boo amee concurrence loolu moo gën sax comme ça muy xam bàyyi xel xam ne am na ku nekk si ginnaawam. si man bëgg naa concurrence parce que bëgguma sax jàpp ne man de maa fi nekk si xam nga mun naa teg penalty sax woowee ko comprendre mais boo xamee ne nekk si ginnaaw di nga gën a yokk jom quoi waaw et que loolu tam aussi man euh, naay rek. su ma amee temps moom bi dugg terrain man dinaa wane li ma mën bu dee coach yi loolu li ñuy jugé rek du ma am problème boobu amul loolu dara. Euh, Coupe d'Afrique bi jot na dans six cinq mois à peu près euh, ñu ngi koy waaj bu baax objectif Sénégal euh, fédération bi ministère état bi ñëpp final lañ final lañ wax yow en tant que joueur acteur ngay nga nar a bokk incha allah si jongante boobu nan nga nan nga gisee objectif bu ñu assigné fédération équipe nationale bi. pour man jël coupe bi la la ñuy wax parce que final te jëloo ko bi dafa amul sens bu ñuy waxee dëgg rek te yàlla tax doo wax ne yaa gën a aay mais dangay wax ñun Sénégal ñu ñoo gën a fu mu nii moment bi ñu bi gën a baax waaw ñu bañ def suñu boobu rek peut-être gagné nañ ko pare dangay xam naa ne du yomb parce que kii bi gis nga nu mu mel déjà boo xoolee match yi ñoo ci qualification yi dafa métti woon te boo xoolee tase guñ ci benn équipe bu mag. kon xam naa ne narul dóor loo xam ne lu yomb la parce que ñun li ñuy waxee itam dañ ko bëgg jàpp na ñeneen ñi nga xam te c'est la même chose li ñuy wax mais am naa confiance ci équipe bi trop parce que vraiment boo xoolee joueurs yi ñu ci bëri ñëpp ñuy def performance bu baax kon gëm naa ne bu si yàlla àndee ñu boole xool yi doon benn incha allah dinañu am dara quoi.